di waat rek asalaamaaleykum wa rahmatullah di la nuyu seex di nuyu aussi Oustaz di leen euh, di kontaan aussi di ñëwaat ci kër gi ndax fii comme ni mu ko waxee duñ fi gan Thierno Alassane Sall mi suñu président président République des Valeurs moo ñu yebal te comme ni ko doyen bi waxee du fi gan moom it ndax yàgg na fi ñëw su fi ñëw xëñ na du ay émission moo ko fi indi waaye cofeel gi mu am ci kër gi cofeel gi mu amoon ci borom kër gi ak cofeel gi mu am tey ci ñii di liggéey ci kër gi moo ko fi indi jaar nemmeeku leen waxtaan ak ñoom ci naka la Sénégal war a doxee ndax moom ku ko xam xam ne ci tànk yooyu la nekk jamono doy dox nag ba lii dal ci sunu kaw laay wax parce que du yéen rek man dama jàpp ne Walfajri lépp lu ko mënti dal dama jàpp ne Sénégal la ndax ñun ñi certes ay ndaw lañ waaye li ñu gën a yokk ci dugg ci politique tey wal fajari daf ci bokk ndax boo nekkee première télé privée bi génn ñu yàgg gis ni mu doon doxee par rapport ak événement yi fi am di woo kàngam yi ñuy ñemee di wax ci doxalinu réew mi ñooñu tey boo duggee politique am na wàll biñ ci dox loolu vraiment lu ci mënti am dañuy jàpp ñu ñun ci lañu bokk donc dañuy ñëw aussi di leen massaw au nom du président Thierno san sal dafa demoon tournée dafa ñëwaat yaram bi xaw a sutanti tuuti moo tax tànk yi xaw a diis waaye bu du woon demul xëñ naa ne gëm naa ne kenn du ko fi jiitu ndax doon na fi ñëw bien avant lii di am donc di wax rek ne euh, Sénégal tey ku nekk ci ñun acteur politique acteur de développement acteur de la presse war nañu ñun ñëpp ñu toog ñu xoolaat Sénégal naka la war a mën a doxee ndax dañoo am legg bi suñu maam yi ak suñu wayjur yu bàyyi foog naa ne loolu su ma yàggee di déglu Sidi euh, Sidi Lamine Niass doon na ko wax ci lu bari ba di ko méngaleeg ay histoire yi fi jaaroon ci yi mu doon nettali bu ñu ko méngalee suñu mag yi fi jaar yëpp war nañ xam ne legg lañ ñu jox ñun kon waruñu nangu puso bu di réer suñu loxo ñi jiite réew mi ñun ñu nekk ci gujje gi ku nekk war na too xam ne lépp loo fi mën a def bu dul intérêt Sénégal rek bàyyil mu dem lépp lu waaye mën a def pour intere Sénégal la war a doon intere Sénégal nag dafa war a tegu ci kaw dëgg ak ci kaw jàmm te loolu la ñuy ñaan na dëkk bi am jàmm na Sénégal am jàmm na ku nekk xam ne jàmm ci moom la war a mën a jóge du tey danga yor dara da nga yor nguur wala da nga yor alal wala da nga yor pouvoir boo mën ci am rek da nga ko war exercer si ñeneen déedéet du du du du yoon it ku amul dara wala war a jël li mu mën ci yàq di ko def parce que bu yàq amee yow da ngaa yàq kenn ku nekk ci ñun war na xalaat ne Sénégal bu mu nangu bu xëy na yàq di am sama bañ a jóge ci loxoom jaay doole war fi mën a am parce que démb ñu doon bañ ku leen jaayoon doole tey bu ñu nawee day jaay doole donc il y a des questions à se en tout cas ñun euh, tànk yooyu la ñu ñëwoon tey euh, président sal Sall Thierno san sal ni ñu boo la ñu demee nuyu la ñu Cheikh parce que jarbaatam nga vraiment ku am cofe la ci yow. dëgg yàlla bu tànk yi lu mu diis moo fi jiitu tey ñu wax rek ne vraiment ñu ngi leen di masaw ñu ngi leen di masaw et on appelle vraiment à la retenue et à la raison tous les acteurs yi ngànk lépp ci Sénégal di ko commencé ci njiiti réew mi ba ci ki gën a suufe tey donc vraiment kàddu yooyu la ñu indi woon tey moo nekkoon vraiment sunu tànk di wax rek ne on est avec vous ñun ci peuple bi la ñu bokk du ñu sax ñëw en tant qu'acteur politique déedéet dañoo ñëw parce que euh, faj dañ fi am wal ndax bu dara amee da ngeen ñuy woo yéen waa République Développe ñëw leen ngeen wax seen xalaat ci réew mi nu muy doxee ñu nit ñu ñëw toog waxtaan ci sunu wax sunu xalaat ci nu muy doxee ci réew mi donc waxaat leen ne ñu ngi feddaliwaat encore sunu sunu cofeel ci yéen sunu kóllëre di wax na encore ñu ngi leen massawu ñu ngi ànd ak yéen ci lii et vraiment yàlla na fi lii di gëcc yàlla na nit aussi seen xel yi dellu siwaat ñoo xam ne Sénégal ñu ñoo ko bokk loolu daal moo nekkoon kàddu yi di kontaan loolu encore di ñëwaat ci ci kër gi di kontaan loolu di ñëwaat ci kër gi.